kon mbokk yi ci foofule ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te muy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la dal leen ak jàmm njiitu réew mi Macky Sall ak délégation gamu àndaloon ca Paris Walf Quotidien dañ leen fa yuuxoo seen ngan googee dootuñ ko fàtte yéene kaab li ñu xamal ne ku jéeg politique bi ñoo mayutoon jàmm njiitu réew mi Macky Sall ak délégation gamu àndaloon te newoon ca ambassade bu Sénégal ca Paris Walf Quotidien fa la ku jéeg politique bi doon amale seen tendefalu ñaxtu ngir ñaawlu anam yi njiitu réew mi Macky Sall yoree Sénégal Walf Quotidien doxalin gi ni mel ca Paris doon lu mer lool lool njiitu réew mi Macky Sall ak ñamu àndaloon gis ne la fa xew lañ ca jota nettali wute na lool te kenn seen jotu fan buufaanu njiitu réew mi Macky Sall kenn rawalewu ko ca ambassade ba El Hadji Amidou Kassé bokkoon ci googule délégation gis ne loolee dara amu ca ña doon yuuxoo ca buntu ambassade bu Sénégal ca Paris lim gu néew la jot nañ ko xayma ne toll nañ ci juróom-ñaari opposant yaa xam mbay ci Walf Quotidien gis ne yuuxu ya ñu ne moom la ñu yuuxoo njiitu réew mi Macky Sall ca France gamu ne woon demeewu ni ne amutoon lenn lu leen jaaxal ci googule ndaje Walf Quotidien ne mi Macky Sall jot na faa yëkkate ay kàddu xamal ay militant APR ak dooleem fépp kenn mënu ko téye ne li xew mënu leen jaaxal ne ku jëkk politique bi waxa leen dese te APR ak majorité ga mu am fépp dara mënu ko gàllankoor dara mu ñu noo te yegg fa ñu jëm njiitu réew mi Macky Sall lay wax yéena kaabi di las ne ca Paris googule gannaaw bu ñu ne dañ ko faa yuuxoo moom njiitu réew mi Macky Sall ak ay militant benn kaddu la leen xamal ne nañu xam ne géej ak dooleem kenn mënoo su ko téye loxo riir gi APR am doole gi APR am kenn mënu ko téye du bi moo leen mën a téye njiitu mi Macky Sall ne la yuuxu gañu ne moo am ca nganam googe ca Paris njiitu mi Macky Sall ne yëngalu leen benn yoon nakku jëg politique bi xooli feneen yéene kabi di l'observateur xëy xool APR na muy doxee ci xiirook ngaayo njiitu réew mi Macky Sall sàkku ci militant gu ne ngir ñu jiital yar gu mat sëkk ci APR naka sudul noonu gi defee war a dàgg ne waru ñoo seetaan ba lenn li di leen gàllankoor ci élection législative yi ñu jëm njiitu réew mi Macky Sall ne ca France ga mu ne woon xam nañu ne foofee APR mooy majorité waaye fegoo càk Benno Bokk Yaakaar yéene kabi di la amal taxaw seetlu ci doxalinu njiitu Macky Sall ne bari na fu muy romb dañ ko fay yuuxoo yéen cabinet yàggul dara yuuxoo nañ ko ca Paris te loolee njiitu réew jotu ko faratal jàppewu ko lu am maana ndax xeeboon mbooloo ma fa doon yuuxoo yéen cabinet xanaa njiitu réew mi Macky Sall dafa fàtte la daloon Abdoulaye Wade ca ngurug soppi ga woon gannaaw bu yuuxu ya jibee fu ne Abdoulaye Wade jàppe woon ko brise maanaam piix mu neex guy bàyyee ci géej gi waaye yëf ya mujjee na ëpp ay loxoom ba doon ouragan googule coow moo ko topp benoone muy ñàkk réew mi yéen cabinet xanaa njiitu réew mi Macky Sall dafa fàtte coow la toppoon ci atum 1986 ci nganam ga mu doon amal ca Paris waaye coow loolee moo ko topp ba 2000 muy ñàkk réew mi yéene cabinet tey njiitu réew mi Macky Sall war na amal taxaw seetlu xam lu ko yoot gannaaw coow li ko topp yéene cabinet di la feelu ko ne njiitu réew mi Macky xam na lu mu fi liggéey ci diiruk juróomi at yu mu defagum ci boppu réew mi jot naa ful koom-koomu réew mi lii di croissance économique toll na ci 6,7 pour cent ci atum 2016 le soleil ne ci juróomi at yi le suqaliku am na ci mbéyum ceeb gi maanaam autosuffisance en riz ci juróomi at yi am na ci courant bi newoon ci 584 mégawatts ci atum 2012 waaye tey dem na ba toll ci 864 mégawatts ci juróomi at yile nguurug Macky Sall waar wu yaatu la béy ci xeexum inondation maanaam mbënn mi ak leneen ak leneen bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil yéena kaabi di Le Quotidien xëy jox kaddu Seydou Gueye mi xam le ne mi Macky Sall lim fi liggéey yaa na lool Seydou Gueye ay kàddoom ci biir yéena kaay bi ne yi dina wax askanu Sénégal ne yaa ngi liggéey lu baax yéena kaay bi gis na Seydou Gueye mi le toppandoo njiitu réew ba woon Abdoulaye Wade ma Karim Wade dina wax sa yaay ne liggéey nga lu baax ne lam fi liggéey yëpp dina ko yeggee askan wi ci juróomi yu mu defagum ci bopp réew mi yéen a kaabi di Vox Populi ne juróomi at yooyu le Mamadou Lamine Massaly bu PDS joxe na ci xalaatam Massaly wax ne juróomi at ci bopp réewum Sénégal ak nguurug Macky Sall def ko tënk ci juróomi te Massaly ne bankal baaraam te ba ca jiitu di télé maanaam ku munul bawoo lu yàqu yewa te ba ko ñaareel di tëj maanaam li mu doomu aadama yi nguurug Sall tëj ci kaso yi te ba ko di tukki maanaam munatul toog ci réew mi te ba ko ñeenteel di tuumalante maanaam ñi nguurug Macky Sall dëkkee di tuumaal te ba ko juróomeel di tooñ maanaam ñi nguurug Macky Sall dëkkee di tooñ Mamadou Lamine Massaly gis ne njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram du dem mënul dem te du mos a dem ñu dem ci Zoom Info ak juróomi atum nguurug Macky Sall ana fan la Benno Bokk Yaakaar toll ndax doole ga ñu amoon ci atum 2012 ba tey la lawoon fawoonam déet Zoom Info di ñu fàttali ne bile coalition Benno Bokk Yaakaar ci atum 2012 gi ñu ña nga toll woon ci 55 pour cent waaye buñ ko xaymaa ci référendum gi ñu Benno Bokk Yaakaar mu ngi toll woon ci 40 pour cent réew mi quotidien daal di ko feelu di ñu xamal ne élection législative jotagul te réew mi soobu na ci campagne maanaam république bi tàmbale na dagaan batu askan wi lii di élection présidentielle jotagul réew mi daal dina soobu ci campagne bu deelu jëm ci yuuxoo yañu ne dañ ko fa yuuxoo njiitu mi Macky ca Paris réew mi quotidien ne yooyu la yuuxoo njiitu mi Macky Sall jotu fratal ne gisu fa lu tax ñuy naan yu bees yi doon lu leen njort ne bu ñu deful ndànk njuuj njaaj ak jalgati mun naa feeñ yile wote yéene bi di Sud Quotidien ne opposition bi maanaam ku jeeg politique bi seen xel dalul benn yoon mu ñeel mbind mi ci liste yi gannaaw bi nguur gi xamle ne bindagum nañu lu toll ci juróomi million ngu doomi aadama opposition bi man ko watu Sénégal ne déet ndax lim bu takku ci ay commission doxatul bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Lamine Diallo yéene kaa bi di Direct Info xëy addu imbécile amul benn salopard bu mun a xajamal digganteem ak njiitu réew mi Macky Sall yéen cabinet Moustapha Niass moomee mooy njiital assemblée nationale direct info ne te moo ne yàggul moom Moustapha Niass yëkkati na ay kaddu ci assemblée nationale daal di Barthélémy Diaz ne fii ku fi cëppi-cëppi man nga fi fekk ne li ma wax ku mu neexul maa tey Moustapha Niass ay wax direct info ne te moo ne de moo jiite assemblée nationale tey moom moo yoroon xeer wa ci bëccëgu ñaar fukk fan ak ñett ci weeru juin 2011 doon songi assemblée nationale yéen ci tëjum kaso Khalifa Sall Moussa Tine gis ne njiitu réew mi Macky Sall mos na ko dénk ay kàddu ngir mu sàkku jàppaleem ci Khalifa Sall ngir mu mun a faluwaat ci bopp réew mi Moussa Tine ne lu bari xew na ci diggante Khalifa Sall ak njiitu réew mi waaye tey njiitu réew mi Macky Sall feewul naar bi xoromam te moo ne de xalifa daj na lu ne ngir njiitu réew mi Macky Sall mun a falu ci bopp réew mi Moussa Tine ay wax yéen kaabi di Vox Sport xëy duñu gestul équipe nationale ci wàllu basket ak jaloore gañu def démb daan Mali yéen a kaabi ne suñu gayndeyu basket yi jot nañoo toroxal Bamako Sénégal mi am juróom-ñaar fukki poñ ak juróom-ñeent Mali am lu tolloog juróom-ñaar fukki ak ñaar yéen kaabi suñu lamb xëy jox kaddu Diallo mi tàggat Eumeu Sène ci wàllu physique Diallo leeral ne combat gi war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier ne ci googule combat Eumeu Sène doole ga mu yoroon ci diggante mag Gris Bordeaux doole googee la yor ba tey te dina ko wone ci bile combat. jaajëf jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm di sant tamit di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci xibaar yi bu mu yemb ajaratu Penda jàll Gueye ma fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji seen ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba kon mbokk yi mucc gu sax ci ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gàll yendoog jàmm